سميا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا يا قبلة الذين سلموا مسليا مسلما على رسول يا من أباني بزول مسليا مسلما على الرسول يا من أباني بزول مسليا مسلما على الرسول يا من أباني مسلما مسلما على الرسول ma di ko joxe ci turu sama bokk yi ngir jotal seenu cant ci siggil nga sagal nga leen dalal nga leen liggéey bii nga leen boole ñi ngi seeral sëñ gërëm nañ la sant nañ la ñi ngi koy seeral sëñ Tuubaa te ñi ngi lay seeral ne ñoom nangu nañ la sëñ Tuubaa gërëm na la loolu rek lañ bëggoon jotal la ko ci bisub tey bii di la wax na fii dama laa waxoon ne tey keroog dama ko tudde aljannatul ajila waaye yëg-yëg bi ma am fii mooy xadaaiqul fadail la it loolu tax fadili yoon yi mënuñu la muñ seen ruub di ko yëg mbak ñëpp ànd ak yow lépp li sëñ bi waxoon ne li xayrin taxaa bil muntaxaa kullu si saqa wa yanxu bihi naaw yi sayidun wa suutuqa mënoon naa wax bil Mustafa mënoon na bil Mujtaba te teewul wayu way way mel na mu war a mel waaye lu tax mu jëfandikoo foofu muntaxa loolu mooy laa rafaatale ba yidoo wii ba xam ne xol yëpp la nangul jullit yëpp fii ñëw di la seet ñëpp la bëgg ñëpp la nangul murid nag dañ laa gëmewut kon nag sëñ bi sëñ Tuubaa ngoog moo la man a fay yàlla na la fay ba sa ba sa xol sedd ba jërëjëf min min min min bëgg yàlla na demee mi mi mi mi